ñu ngi ziar kii maa ngi taxaw nag xalifa muy koo xam ne nag kenn du ko présenté Sénégal laay wax mu nekk koo xam ne mi ngi sonn ci jaraaf tey nag xalifa dama ñëw euh, seetaan si Asmoon Sport ñëw doon seetaan si matchu jaraaf ak Tëngéej SP euh, Tëngéej FC tey jii nii loo ma mën a wax ci match bi. waaw match bu important la di leen nuyu yéen waa As Moon TV di la nuyu yow As ancien international ancien joueur bu mag bu jaraaf bon match bu match match bu mag la dans la mesure où que leader bi la jaraaf di dajeel te jaraaf ambition mooy jël championnat bi joué nañu match aller ñu doon leen à l'extérieur 2-0 donc xam naa ni ñoom dañu ñëw at esprit de revanchard te c'est un match très important parce que mooy tax tey jii ñu gën a recoller au peloton quoi moo tax du match boo xam ne dañ koy jël à la légère boo xoolee tamit ñooy les deux africains bu championnat Sénégal ren ku nekk def parcours bu baax donc loolu moo tax match bi di match bu mag quoi waaw d'accord wa waaw loolu gis nañ légui comme amna lo loo légui ci Coupe d'Afrique bi ci yeen ñaari équipe yi ngeen xamni yeen représenter euh, Sénégal ci Coupe d'Afrique, Afrique ngeen def parcours bo xamni ñepp ñëpp gis nañ ko mais tey jii la nga mëna wax ci ñaari match yi jaraaf ji lan moo manqué jaraaf. ci Coupe d'Afrique bi Wa, wa xam nga match bobu mom manque de chance amna ci expérience. manque de chance moy tey jii boy, jouer match amay occasion net xalé yi fofu manque d'expérience, expérience la ñooy but parce que occasion mom tant que yaa am moy équipe baa jouer joué bu baax malheureusement nag ils n'ont pas été vigilants raté bal yu bari deuxième aspect bi gëna a sonal jaraaf surtout moo doon arbitrage bi tamit te gis nañ ko xam nga match tamit boo amee ay penalty ñu koy bañ tiré wala dugal bi ñu créé bon loolu du du jaraaf su ko dalee day metti bon du ma ni kenn la lu dul waa parce que ñoom tey jii waroon nañu toll football toll na ne comme ni européens def créé ay VAR boo doolee quart de finale Coupe d'Afrique nga dem VAR doon na régler problème yu bëri donc jaraaf loolu sonal na ko trop ci arbitrage bi mais tamit occasion raté yi lucidement on a raté beaucoup d' occasion moo impacté si résultat quart de finale bi mais yow gisoo le match aller bi nga euh, sa qualification. le match aller bi ça revient ce que wax rek ñun à 10 sax depuis 37e minute la ñu jël à 10 taxul ñu eu ëpp occasion net net ay occasion net ay goal passe attaquant goal bal xam nga yooyu tamit du ma la ko jàngal yow attaquant mag nga woon xam nga bal yooyu match Coupe d'Afrique une occasion boo ko koy exploité Mastana nga raté 3 donc tamit depuis foofu la ñuy raté tamit nos qualification mais mënoon nañ ko remonté quand même te remonté nañ ko moo ñu quand même. mais tey jii ñu gisoo Giraffe. tey sur le plan national kenn jaraaf amatul lu muy prouvé kon si le plan international la jaraaf war a prouvé tey jii nii gisoo tamit jaraaf xool euh, ci côté euh, jour xool jour yi nga xam ne tey jii nii am nañ benn expérience bi ak benn mental bi ak benn niveau bi sur le plan africain. bien sûr xam nga doon jéemoon nañ ko def daaw at ay étranger malheureusement affaire bi jàllul parce que at Covid bi ba pare. Nous avons peut-être problème d'adaptation am guinée en doxuñu def nañ un cadre international malien international guinéen Nous devons continuer prospecter d'abord les meilleurs effectivement, les meilleurs du Sénégal les Djemoud, wut bu paree dans la sous-région am nañu ay contacts dans la sous-région côté Côte d'Ivoire Guinée Gambie am nañu ay contacts ñu ngi si en attendant saison bi gën avancer quoi merci Khalifa waaw xam naa ñu xool rek ma jeex pour xool ok merci. qui Siré coach ñi ngi ziar naka yi ay capitaine ñi ngi ziar bu match bi ay sama gaay ay say l'équipe le plus titré 12 hein? 12 championnats ngeen am coupes du Sénégal hein? le plus grand club hein? le plus titré aca les gars aca Pape Seydou ñaari équipe yi nga xam ne tey di ñoom ñoo ñoo représenté woon Sénégal ci Coupe d'Afrique waaw def ci parcours yu honorable parcours yoo xam ne tey jii nii kenn mënu ko maanaam daal am nañ ci mbégte sénégalais yëpp waaw ñu ngi ci am mbégte lool tey jii nag euh, wax dëgg yàlla fii la ñu war a defante benn jongante nag euh, ñuy di di di ñaan rek et puis di wax rek que le meilleur loolu laa mën a wax tey parce que tey jii nii position bi ma taxawee. mooy que le meilleur gagne rek. ambiance baa ngi nii de gis nga ko def match derby la gisoo supporters yi ñëpp jug nañ parce que match la boo xam ne match bu am boo xam ne tey jii nii match championnat la muy derby entre Teungueth FC ak Jaraaf de Dakar ñoom ñaar nag ñoo doon représenté Sénégal ci Coupe d'Afrique yi mooy des clubs maanaam def ci ay jaloore yu mag tey jii nii nag ñoom ñaar ñoo war a daje fii ci stade Amadou Barry ma ni wanal ma leen ambiance bi tuuti ma xool. taalibe Serigne Saliou Paco Jackson tay jii nii mënuñu wax Medina té do tudd Paco Jackson Paco Jackson ci nawétan ah Paco Jackson euh, bon ci social tay nak mom la taxol doon ko fekk muy doon seetaan match Tëngéej ak Jaraaf no gisee match bi. wa match bi vraiment match bu neex la vraiment niveau amna na gëjoon naa seetaan football Sénégal mais vraiment je suis agréablement bien surpris vraiment avec nak une légère domination du Jaraaf. D'accord. mais comme tey jii comme domination bi ba li ñuy raté dafa bari tey jii nii boo ñaari coupe d'Afrique, ñaari match aller retour ñu jé manque efficacité mo leen dal tey jii nii jaraaf lan lañ wara yok ci seen jeu. wa mais loolu dañu wara outil attaquant buy duggal parce que wax nga ko légui coupe d'Afrique, loolo leen xagn do tax qualifié wuñ. ci ñom ñoo mënon équipe camerounaise bobu seetaan naa match bi tay ma ñëwaat gis n'a plus de sept occasions et puis dernière passe bi xam nga mënul mënul mënul am donc dañu wara a

parce que ñi ko yore mënuñu te duñu bàyyi il faut ñu dem jëli ko ci ñoom nangu ko loolu rek mooy affaire bi doo dem fekk euh, làmb nga bëgg ko jox ñoo nga xam ne du ñu mbër mais lu nekk ki ko mën a ko mën a defar nañu waxante dëgg football bi dañ ko war a nangu ci ñii ça fait quinze ans mënuñu yóbbu football bi fenn dañu war a abale il est temps. waaw ah, d'accord dégg nañ kàddu yi mais léegi. xam nga tey jii nii bon bu ne jàppoo ne euh, Paco Jackson. ASC bu mag bi <laughs> waaw mais tey jii nii Paco Jackson dirigeant Jaraaf. pourquoi pas man fa cadet xam nga Jaraaf laay supporter. maintenant laa dëkk fa laa judo. ah oui bëgg naa ko. ah oui man am naa ambition ci football bi ah oui. mais est-ce que dem nga jege pour. non daw ma jege. Ah. parce que man dama bëgg def sama yëfu bopp. mais suñ ma woowee nag. ma ñu ne catch bi gën a populaire Médina jàppo dañu war a woo dañu war a dugal ci football bi. jaraaf mais mais nag boo toogee sur place noonu te nga xam ne yow jaraaf kenn ëppale wu la fa. Médina nga dëkk. di ngay def Médina lu ñëpp gis lu Sénégal gis. te jii nii waroo xaar ñu woo la. non mais xam nga déjà ki fa nekk di président Youssou Diall. sama frère la sama xarit la. donc yéene naa ko jàmm bëgg naa mu am ndam. mais nañ waxtaan. ah, ah. <laughs> waaw euh, maa ngi taxaw Soxna Fall. Euh, soxna di la laaj rek comme tey jii ñaari équipe yi nga xam ne ñoo représenté Sénégal ci Coupe d'Afrique bi tey jii nii lu manqué ñaari équipe yi ba sore wuñu bon merci beaucoup ci laaj boobu mais retenez que ni match Coupe d'Afrique yi nag ak match championnat bokkul li ma seetlu tey mooy euh, jaxaaf mentalement dafa xaw a des te dafa am ak yàkkamti gu ma remarqué ci ñoom parce que am nañu possibilité am na compact bi jeu bi mi ngi fii comme ñaari équipe yëpp am nañ de belle séquence de jeu ak xaw a gi wala tamit xëy na pression bi la ñu rendrewul positif dafa négatif ci seen côté moo tax ñuy raté yenn yi loolu nag euh, ñi di tëngee ñoom dañ ciy profité waale ci faay yooyu pour ñoom euh, daal di koy concrétiser loolu moo indi sax sànq ñoom li ñu raté sànq fee ñoom tëngéej moom la ñëw daal di dugal bi bi te jàpp naa ne war nañu gën a indi dal gën a xool naka la ñuy passé nous a xool tam naka projeté vers l'avant pour bal bi di gëna une attaque jot attaquant ñu lucidité ak efficacité pour nous duggal dugal parce que nous est bien en place parce que ñom dañuy en attaque dañuy reculer ensemble pour rek sen compact gis derrière nous def ligne défensive bi joué ak ñetti défenseur lool mo lay wax ni ñom tay dañu ñëw pour rek tok bañ jël ay but té loolu mi ngi fay depuis le début de cette rencontre même si Jaraaf est en train de faire un bon match mais il reste quand même euh, de tuer les opportunités mm-hmm. mais dañ gis nañ loolu li nga wax moom bon d'accord mais jaraaf ji ni boo xoolee ak li të ngee toog ci kawam. tey jii nii jaraaf am tout à fait loolu lay wax sànq dafa xaw am ak yàkkamti précipitation bi moo ci bari boo xoolee jaraaf moo gën a bëri lu mu yore bal bi ndax tëngéej ni mu indee tey da ngay xam ni dafa ñëw pour toog ci dafa indi un jeu défensif parce que bu ñu attaqué ndoo dañuy reculer ndoo ensemble pour rek def benn compact bloc bas boo xam ne jaraaf dañuy euh, fexe ba jaraaf du mën a rek sauter verrou bi naam jaraaf mu ngi sauter verrou bi mais li ci des rek mooy euh, ñu tuer opportunité yi xam ne moom la ñuy am

moy les internationaux sénégalais le président Cheikh Seck tous les internationaux sénégalais moy différentes générations yëpp yóbbu leen sari dëkk ak ñom ci kër gi nga xamni fa la nekk tey jii nii lool ban sentiment nga am ci lool c'est une bonne chose parce que si tu parles d'anciens internationaux mooy ñoo xamni yag nañu sol.

seen xalaat seen xam-xam ak seen doole soxla nañ ko réew mi yëpp soxla nañ ko comme ni ñu représenté woon dignement le Sénégal kon dafay baax rek ñoom ñu am ak déggoo am ak waxtaan bu sell boo xamante ne si dina mën a amal njariñ comme ni ma ko waxee la crème du football sénégalais.

waruñu toog rek mental bi baaxul baaxul ñu jàppee ko noonu rek parce que on doit yowa dañu bëgg war a avancer di am des coachs yoo xamante ni si seen xam-xam dafa màcc ci wàllu mental ñu koy exiger club yi ñu ciy liggéey liggéey boo xamante ne si xale yi dinañ ci war a am njariñ mais bu fekkee ne discours kese nga ko jàppee discours bi dañuy dem ba dañ koy tàmm te chaque fois nga dégg discours soit coach soit euh, dirigeant club wala soit képp koo xam ne rek dirigeant la ci biir club bi même discours yi en général la ñuy tenir naam sax dina am lu bari luñ ci jàngate mais ku nekk ak liggéeyam te ku ci nekk ak li nga xam ne moom nga jàng moom nga war a tari dañoo war a di imprégné wu fexe bay dugal di intégrer des coachs mentaux ci biir club yi ñuy dimbali xale yi parce que seen mental day gaaw a affaissé wu de trop te loolu day feeñ de trop ci suñu différentes équipes nationales yi ak suñu différentes équipes yi nga xamante ne si ñooy compétir même au niveau national. waaw xam rek ñëw ñëwoon pour jouer pour. am defet quoi yàlla def na am nañ defet dañuy redoubler d'effort continuer liggéey bi rek xam nga championnat bi jeexagul quoi soo xoolee premier mi-temps xam nga rek ñoo ëpp occasion quoi mais gars yi exploité wuñu ko quoi loolu tax quoi. waaw dañu gis lii parce que manque d'efficacité boobu dafa feeñ seen deux matchs coupe d'Afrique yi même chose ngeen koy répété mais loolu jarul ngeen liggéey ci waat bu baax. waaw waaw soo seetloo chaque semaine dañ leen ciy liggéey quoi xëy na incha moom gars yi dinañ ciy redoubler a boo xoolee match bi yomb na si ñun presque première occasion yi ñun ñoo ko am euh, jotuñu ko dugal mais boo xoolee ba match bi di ba ay 43e minute ñu téye match bi en main mais sur sur ay détails rek que comme ñuy rek occasion la bu am entre gardien bi ak euh, défenseur yi y a pas de communication foofu euh, ñu jël benn bii ñu jël si mënoon gérer ba mi-temps te def naa ne faute bi foofu la commencé match bi foofu la commencé métti par rapport ak euh, match bi ni ñu ko commencé ak ni ko tenir en échec. waaw mais dañu gis comme loolu manque d'efficacité bi équipe bi am non parce que ay regret rek lay indi quoi. jour devant le but dañu wara a lu si yooyu yëpp ñu ngi travail lu bari mom bo xolé ça fait 2 3 matchs ñu dugal bi bari wa. mais def naa ne à part Coupe d'Afrique suñu dernière journée ñu euh, euh équipe Coton Sport def naa ne foofu manqué nañ manqué nañ foofu ay bi réussite te du fekk euh, du ay du du na laa ko mu waxee mooy que mooy que tey dañu xaw a dañu xaw a yàkkamti quoi dañu xaw a yàkkamti tey boo xoolee tey Albert fu mu waroon yàkkamtee tey pour dugal bii bi euh, tey foofu la yéexee tuuti ba défenseur bu ñëw dog bal bi mooy que euh, dañu manque comment dire mooy que automatisme boobu la ñu la ñu moo des te def naa ne souvent entraînement dañ koy dugal ba ba affaire day yomb ba dañuy jàpp ne match bi. Euh, non la parce que si si si match yu mel ni def souvent concentration devant les buts day daf daf am solo moy que but du bari mais bo xolé occasion yi pour nga am ko day xawa metti mais bo gisé ne match bi nu mu commencé ba ba ba muy terminer jaraf euh, amul len lo xam ne mën nañ ci wax ne joué na wala joué parce que bo xolé ni ñu ko nu commencé match bi non lañ terminer match bi mais à part manque de bi ñu duggal loolu mo mo mo mo xawa metti métti bal match bi ba Teungueth FC tamit. Euh, amaat beneen troisième deuxième bi dugal ko te def naa loolu yëpp si concentration la quoi après mais loolu yëpp dinañ si liggéeyaat dinañ si liggéeyaat parce que boo xoolee match yi comme ni nga ko waxee léegi am na match yoo xam ne euh, moment bii dugg dafa dafa jegentoo ak ak match bii ñu euh, kii match bii ñu joué tey tey def naa loolu am na ay ay détails la ay détails la si football te détail moom mooy tax nga ngay perte match yi.